maa la gërëm ne loolu amul jox ko loo xam wax ko ko foo jëm yóbbu ko seen place xam ne kan surtout bàppam moo tax ay xaritam yàlla boole ko ay xarit du am fu rek ah ñu ko ko dama lay wax na la comme que temps bi dafa parce que man conseil municipal la wax jaaxaluma si mbooloo mais comme que taxaw dama xam ah dama lay waxal ne la yow sa jëkkër saa bu jant bi fenkee dina tiim moromam yu bëri waaye jant bi fenk tiim moromam bu gën nu maa ko man baax képp ku ci xam moom teraanga xam nga ne ku goree la xale tamit am si ginnaaw di ma dégg loolu tax allahumma salli ala sayyidina muhammad fu ma gàttal rek parce que comme que ndaw la nekkaat sama kilifa wax di ma dégg am na jëkkër bu a a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah ngeen jéggalaat ma rek man xandiwaat si ñaar balaa grand bi wax comme ni ko ñoom waxee rek série bi moom benn la parce que comme ni mu ko waxee rek kenn la si papaam di kenn si yaayam waa kër moom ñëpp xam nañ leen parce que comme que Adja Fall mën na leen seere seere na leen deuxièmement ñun dañu bokk fu nga xam ne mooy gànnaar ñun ay gànnaar gànnaar ay waalo waalo doy na sama lépp ba gis som moom doy na sama lépp si conseil si lépp si oyofam def dara mi dara man nag dëkkandoo naa mais nag ba mu bu ñëwee léegi man jàpp naa ko mooñ ko war nag wax dëgg yàlla taalibe rek la ñu wan ak oyof ak jaamu yàlla amul benn problème xamoo si moom man boobu sa ñaari dal xam ne xamoo fu nga jógee mais fi nga jëm moom dafa daal di incha allah amiin yaa rabbi amiin amiin allahumma amiin ndax tey jigéen joo xam ne yàlla da koo teral teraangam jooju mu jël ko jox ma ko di wéy ci sama ndigal lu ko sant mu def ko yaatal ma boole ma ay bokkam fonk ma lépp loo xam ne lii sama bëgg-bëgg la ci la doon dox suba ak ngoon ba yàlla dogal suñu borom euh, doomam ji di Serigne Sayer Fall mu dem ba tey jii muy jël soxna sëriñ nag du li ma ko jur a tax may wax de yàlla laa koy seedeel juddu na ba ni mu toll sama loxo mësul jóg dal ci kawam mësuma dem fenn ba ñëw ba ñu ni ma Serigne Sayer Fall mi moo fi def lii wala moo fi wax lii mësul am te ñuy xalandoon ak moom màggandoo ak moom it xam nañu ci dara kii mooy nijaayam moo ko yar moo ko dugal école di ko toppatoo njàngam ba fii ñu toll nii tey ci loxoom la nekk kee tam nijaay la mooy rakku kii ñoom ñëpp ñu def ma kilifa daal lañ ma def kilifa lañ ma def téye ma téye bu rafet téye seen jot ba bu rafet lii moom la ñu xam ndax ñoom seen yaay ji leen jurut moom it dawlu na waaye kenn gënu jigéen ju baax ju am diine lislaam yaatu laa biir mooy wayjuru ñii macha allah te keroog bi ma ci duggee tam eh, ñii ñoo ma ko may ak seen nijaay kooku yàlla dafa dogal moom it mu daw muy nijaay Abdou Karim Sow waaye wax dëgg yàlla mosuñu ma ci indi benn coono walla benn problème binta daal ñoo tam ñoo tam yaay moom moom moom tam moom trop exemplaire parce que sama rakk sax jigéen bu ma daan mel dam naan ko yow chance jëkkër bi ñu am xamuloo ko sax kii mooy dawlu si ñëw ni ma mooy mooy si ñëw ni ma miis dafa mer man ko sëriñ kii mënuloo ko fase ah, mu ne ma ne soone doo ko fase kii na ko doon lu ma yàlla tere mais yàlla moo leen boole daal sëriñ bay lii judd si kon dañuy ñaan sëñ bi rek yal na yàlla barke barke moom daal xaw ma si dara wante moom seen doom bi dugg na si loxo yu baax loxo yu exemple jàpp waaw waaw